mu ngay dox jëm ca géew ba taala ànd ak booy bool numéro 2 marle nga ca biir géew ba moom booy bool ak naan supporters yi jóg leen waaye booy bool ndax loolu bëre ba pare gënu koo wóor bëre ba pare gën a wóor de laa ilaaha illallah bëgg naa la ñaxal ee waay marle ngoogu ñëw di calmé xool butéel yi xoolal butéel yi xoolal butéel yi. Ndeysaan Boy Baol ak Marley Boy Baol ama neex waxu mujj daan daaw Marley jën kayre daaw kon tey combat bi metti na Marley ngay sotteku kooku rakam la Talla Ndiaye eh Martin xool Martin kii mooy Martin numéro 1 moo sol wisa bi noonu bëre na ak Martin mbër mu mag la ndeysaan xëccoo bi boo boo numéro 2 dañ ko ne génnal géew bi waaw dañ ko ne génnal géew bi. nañ ko ne génn géew bi nee na ñu dem de te nga génn Salloo koy jël si noonu jël ma Salloo taala xoolal Salloo Salloo ngi arrangé problème bi Salloo ngi arrangé problème bi Salloo ngay daw topp ca cey ji làmb booy moo la ñu sotte ko rek kaay taala kaay. arbitre bi wax ak ñoom. Malick Ngom wax na ak ñoom ni règlement bi bañ a kii mu nangu Malick ay arbitre Marley à Boy Baol à droite tey di dimanche 16 juin 2019 Assane Ndiaye leen fi woo boole ñaari mbër yi eh Boy Baol olympique de Ngor Mop Marley école bi Papa Kane ca géej waaye Marley koy gëdd Marley door ko Marley koy kar Marley koy kar eh, eh xeex Boy Baol génn na. laa ilaha illallah taala demal lu xew arbitre bi ñu appi eh arbitre bi kat appi la wax arbitre na na kat appi taala njaay problème a ngongu taala problème a ngongu ndax kat appi am na laa ilaha illallah ah na waar. est-ce que waroon gën a wax de arbitre bi wax de. ah neexul ma. waaw mais neexul quoi neexul neexul. mais ñëwaa Malick dina doo ñëw ngi ne ñoxor nee nañ duñu wax de arbitre seulement du terrain a atte Malick a joxe verdict gaa yaa leen sécuriser taala wërël wërël waa GMA leen sécuriser. lu doy waar arbitre na moom loo si mën a dégg wax nañu kat am na c'est le maître du terrain taala arbitre salam ñu ñu dem Malick lu xew Malick a ngay ree may ma ko démb kii moo ñu joxoon xalaatam ci Diène Kaïré ak Marley tey dama koy jëlaat coach arbitre bi li mu ci gis. Euh, mais xam nga jugement arbitre. waaw euh, souvent tout le temps contestation. Uh-huh. mais quatre appuis dafa gaaw. et puis attaque bi préparé wu ko donc sur accélération lay doon. donc automatiquement dafa am ak euh, sur euh, comment ça s'appelle quatre appuis quatre points c'est-à-dire les deux genoux et deux mains. mais alternative mu gaaw jogaat. donc il y a le temps quand même de lire voir les genoux voir les deux mains parce que déjà les deux mains ñu ngi donc quand les deux genoux am na suuf avant le départ donc automatiquement ils suivent. am na taala kon ñu doon suivre Leewtoo TV loolu la Malick Ngom arbitre combat bi moom jàpp na ne quatre appuis am na su amee nag li ko yoon may mooy mu tas combat arbitre bi sala metti terrain du xool tey moom lu neex amateur mais li ko yoon may wala mu gis ne moo am loolu lay ate kon ñu suivre Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen jaar fu ngeen mën a ne ci àddina bi di leen balu àq di leen ñaanal jàmm di wax na Assane Ndiaye tamit mention spéciale vidéo bi daal Talla Ndiaye neex na démb lig Nicolas la woon Gris 2 Reug Reug daan ko jël bu rëy Boy Baol tay la woon Assane Ndiaye am nañu fi Boy Baol daan Marley par quatre appuis looloo fi amoon Talla Ndiaye Galicia moo jaar fii ak maillot bi Paris Saint-Germain bëgg ñëpp ziar ñëpp ñaanal ñëpp ci jàpp ba beneen yoon Talla